أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme ni ngeen ko xamee talaata bu nekk ci waxtu wi nu ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci buntu qawlullahi taala innama dalikum alcheytan yuxawifu awliyaahu fala taxaafuhum wa xaafuni in kuntum muminin dars boobu insha allah waxu sayxul islaam ibnu taymiya moom la ñuy jéem a jàngale tey mu nekk sunu dars kitaabu tawxid cheikh bi mu ngi naan alyaqin yatadammanu alyaqinu fi lqiyaami bi amrillahi wa ma wa'ada allahu ahla taatihi ñu ngi woon ci buntab yaqiin sëriñ bi nee na yaqiin dafa ëmb te mooy kóolute gu nit di am ci yàlla tabaraka wa taala mu ne dafa ëmb al fil qiyaami bi amrillah mooy nit ki taxaw ci santaane yàlla tabaraka wa taala ku am yaqin dëgg-dëgg foo ko fekk santaane yàlla da ciy taxaw waaye da ciy nekk da koy jooxe du yem ci loolu waaye wa ma waada allahu ahla taatihi ak li yàlla dig ñooñu ñi ko topp loolu waa ji day sonn pour am loolu loolu mooy ku am yaqin waaye wa yatadammanu alyaqin bi qadri llahi wa xalqihi wa tadbirihi dafa ëmb ba tey kàttanu yàlla tabaraka wa taala ak mbindeefam yi ak bind gi mu bind mbindeefam yi ak dogal gi muy dogal ci seeni mbir mu ne fa iza raditahum bi saxati llahi lam takun muqinan laa bi wa'dihi wala bi rizqihi ab jullit su fekkente ne day ut bànneexu nit ñi ci meru yàlla na ko leer ne moom day nekkagul ku am yaqiin nekkagul ku am kóolute ci yàlla fa iza raditahum boo leen bégalee nga jël qaayida boobu gaa yi naan wardihim ma anta fi daarihim wa daarihim ma anta fi daarihim wardihim ma anta fi ardihim loolu ay wax la yu arab yi di wax mooy négocier ak ñoom fekk yaa ngi ci seen territoire wa daarihim ma anta fi ardihim négocier ak ñoom fekk yaa ngi ci seeni suuf waaye kontaan leen na nga fexe gaa yi kontaan feek yaa ngi ci seen suuf loolu nag du lislaam lislaam moom yàlla rek ngay ut kontaanteem ku mu mën a doon ku mu mën a doon kontaante yàlla moo gën a yey ci waajooju kontaan mu ne boo utee ngërëmal nit ñi ci meru yàlla kon yow amoo yaqiin gëmu digg yàlla dige waaye gëmoo wërsëgu yàlla tabaraka wa taala wala bi rizqihi fa innahu innama yaxmilu al insaan ala dalika nee na loolu nag la yenn saa doomu aadama yenu ko yenu lan kontaante nit ñi ci kaw kontaante yàlla tabaraka wa taala su boobaa nag képp ku def loolu képp ku am melokaan boobu na nga leer ci yow na yow amoo yaqiin ci yàlla lan moo la dal mooy waa ji lan moo ko dal imma maylun ila ma fi aydi nnas loolu moo ko dal ba mun tawun kontaan yàlla mooy lan li nekk ci loxo nit ñi moom moo ko intéressé mooy am am bi muy am ci nit ñi soo gisee tey sunu diine bi am problème mooy comme dafa am ñuy tàllal am ñuy joxe ñii nangu amuñu droit wax ñii joxe def ngeen erreur wala nekku leen ci dëgg dafa am ñu tàllal seen loxo am ñuy joxe ñooñu di joxe nekk ci lu leen neex ñii jël alal ji daal di noppi parce que saa yoo nee waa ji li ngay def araam na wala du nii dootu la joxati day tee loxoom su ko defee nag nga noppi moom mu nekk ci musiba rek di joxe rawatina nag mu gëm ne joxe boobu muy joxe yàlla da ko ci baal bàkkaar nit saa yu jéngee ci li nekk ci loxo yi nit ñi dootu leen wax dëgg moo tax mu ne imma maylun ila ma fi aydin nas su boobaa boo jéngee bëgg jël li nekk ci loxo yi nit ñi su boobaa luy am fa yatruku alqiyaamu fihim bi amrillah gis nga da ngay bàyyi santaane ndigal yàlla saa yoo jéngee ci jël li nekk ci loxo yi nit ñi fa yatruk waa ji day bàyyi alqiyaama taxaw bi ma fihim bi amrillahi lu tax li ma yarju minhum ndax la mu yaakaar ci ñoom moo tax dootu leen wax dëgg dafa am benn waay bu tooñ bi mu tooñee moom leer na ko ne moo tooñ buur bi daal di woote daan ne dañuy àtte bisu sàngam diggante diw ak diw moom waa ji tooñ mu dem ñaw benn mbub mu rafet a rafet a rafet rafet rafet ci kaw ba ci suuf mu ñaw mbub mi boole koog mbax na bi ñaw ko mu boole koog chemise ji boole koog dàll yi boole koog tubéy ji mu rafetal ko ba mu rafet mu ñëw jox ko kii àtte mu ne ko am bis bi ñuy àtte na nga sol mbubu bi daaj daal di sol ñëw toog mbub mi rafet ku ñëw rek daan ne kii àtte yow sa mbub bi rafet na de mu noppi ñuy àtte su booba ngoon mënuñoo xam fu dëgg bi nekk bu ñu àttee moom ba mu war a wax léegi moom moo war a àtte rek mu ne mbub mi moo ma teree wax dëgg de mbub mi mu def ko nii mu xëcc grand mbub bi mu ne mbub mi daal moo ma teree wax dëgg lu tax parce que dañ ko ko neexale parce que xam na ne bu waxee dëgg bi rek waaye borom mbub mi jóg nekk sama mbub kon mbokk jullit yi chaque jour ab jullit na fexe ngërëmal yàlla kontaante yàlla gënal ko kontaante ku mu mën a doon su boobaa rek sa diine ñoŋ su boobaa di nga mën a bàyyi li nekk ci loxoy nit ñi jël li nga xam ne moom la la yàlla subhaanahu wa taala wërsëgale li waral lool nag li waral doomu aadama muy xool chaque jour lu nekk ci loxoy nit ñi mooy daafu tasdiqihi bi ma waada allahu ahlu taatihi mu yenn saa yi imaan bi mooy mooy mooy yambare ngëm gi mooy faible imma daafu tasdiqihi dëggal gi nga xam ne moom la war a dëggal li yàlla dige li yàlla ne man am naa ko dinaa ko joxe te képp ku ma topp dinaa la jox waa ji loolu ci moom moo dul dëggu maanaam day gëm yàlla gëm na yàlla am na yàlla dina joxe waaye ah hi man mi est-ce que yàlla dina ma jox te maa jël lii rek ah lii occasion la de bu ma reppee ba mu raw ma kañ laay amati gis nga faible gi mu bi ngëm gi dëgg dëgg faible ne bu ko nit ñi joxul yàlla jox ko foofu lay nekk di sikki sàkk ah naa jël rek garaaw après ma julli ñaar raak rek daal di tuub léegi nag su ko defee nga jël li nekk ci loxo yi nit ñi nga fen wala nga bañ a def dëgg wala nga noppi ci dëgg wala nga sànk dëgg gi ndeysaan loolu moo tax noppi ci dëgg musiba la yal leen yàlla musal li waral loolu mooy ñàkk a dëggu ñàkk a dëgër dig gi yàlla digée ne moom dina ko jox ñépp ñi ko topp min nasrin wa taayid yàlla moom moo garanti ne képp koo xam ne yaa ngi ci peggam yaa ngi ci service am yaa ngi ci liggéeyam moom yàlla dina la indil ndimbal waaye moom yàlla dina la kàttanal moom yàlla dina la fay ci àdduna wa sawaabu fi dunia wal axira moom yàlla dina la fay àdduna moom yàlla dina la fay al'axira gis nga kon nit bu gëmee ne man su ma kenn joxul it yàlla jox ma su ma kenn dimbaliwul yàlla dimbaliwu ma su ma kenn joxul ci wërsëgum yàlla dina ma jox sama wërsëg su boobaa kenn dootu la sonal nga gëm ne ndimbal ci yàlla lay bàyyee ko wa man nasru illa min indillah nga yëg ne kattan yàllaa ko yor nga yëg ne tiyaaba àdduna ak àllaaxira yàllaa koy joxe su boobaa dootoo faale kenn yàlla rek yàlla rek waaye fa innaka yow iza ardayta allaha nasaraka wa razaqak gis nga de yow jullit bi doolu moo nekk seen téere ah fa iza ardayta allah soo kontaan loowee yàlla wallahi yàlla nasaraka dina la dimbali fexeel yàlla kontaan loolu rek mooy suñu problème nit ñi kontaan moo ñu gënal yàlla kontaan billahi wallahi taala fi mu nekk ni am na ci ñun ñoo xam ne seeni doom yi di kontaan seeni soxna seeni dëkkandoo seeni mbokk ñu kontaan moo gën ci yow yàlla kontaan ci yow ñaata yoon ngeen di gis kër gu am xew ñu bëgg musique ah yenn saa yi sax borom xew bi ni man kenn du fi musique nit ñi ñëw di ko waar naan ko benn bis la fexeel mbokk yi kontaan tey mbokk yi dañoo daje nangam ak nangam benn bis la rek tey ah garaawul nañ ko def rek après garaawul quoi ñaata yoon ngeen koy gis ñaata yoon mbokk yi bu dee xale bu jigéen bu doon muuru la ñu ne ko dindil muuraay bi rek tey ah mënoo koo wàññi tey benn bis kese la ah benn bis bi xanaa xamu leen ni Iblis benn bis la ko yàlla mere mu yàqule Iblis ñaata bàkkaar la am kan moo may tontu ah ku wax benn Iblis benn bàkkaar kese la am benn bis la ko yàlla mere mu pare benn bis la yàlla mere Iblis Iblis pare du ñaar du ñett Adama ak Awa benn bis la leen yàlla mere wàcce leen ci kaw suuf benn bis Adama toog ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan ndax benn bàkkaar boobu ñun ñun ñun ñaata bàkkaar lañ am ah ah ba pare ñu ñu ci yokk leneen xam nga loolu moo doy waar ñee benn lañ am tiit benn ku nekk Adama benn la am daal di tuub ci yàlla Iblis benn la am li tax yàlla baalu ko mooy dafa bañ a tuub ñun ñu yenu ba fees dell ba pare di ko xeeb waaw léeg-léeg nga gis nit ku def bàkkaar ñu ne ko yaa def lii mu ne te di ko xeeb wala gisu leen ko du jeex ci dëkk bi te di ko xeeb waaw waaw kon yëgal ne sunu borom subhanahu wa taala boo ko kontaan loowee nasaraka wa razaqaka mu dimbali la jox la wërsëg waaye du yem ci loolu de wa kafaaka muunatahum mu fegal la seeni coono ñi ngay ragal seeni jafe-jafe seeni problème ak ñu mere la wallahi yàlla dina la fegal problème u ñooñu yàlla du yem ci dimbali la yàlla du yem ci wërsëgal la waaye képp ku la bëgg a lor ci topp gi ngay topp yàlla yàlla dina la aaral boppam wallahu yaasimuka min annaas mu ne wa irdaauhum bi ma sax bi wa irdaahum bi ma yasxatuhu mu ne kontaanloo nit ñi ci luy merloo yàlla innama yakunu xawfan minhum wa rajaan lahum allahu akbar boo ko jullit yi saa yoo gisee kuy kontaanloo nit ñi pour yàlla mer ñaari mbir la boole moo tax muy kontaanloo nit ñi bàyyi yàlla lan la boole bu njëkk bi mooy xawfan minhum daf leen a ragal ñaareel daf leen a yaakaar saa yoo ragalee ay nit luñ la wax nga def ko suñ la teree nga bàyyi suñ la xullee ay bët nga yem dootoo génn sax yenn saa yi ndax da ngay bañ ñu ñu seen seen mere biñ la mere këpp sa kaw waaye nag rawatina nag soo leen yaakaaree soo leen yaakaaree allahu akbar boo leen yaakaaree xam ne ñii ñoo la yor doo ndékki doo añ doo reer wala doo dund weer wu dee ñoo la yor keroog benn paa dafa ñëw fii dars biñ fi mujjee def daan ne ma dama tuub nangam laa woon ma tuub waaye diw moo ma tuub loo woon moo ma doon toppatoo mais bi mu deewee ba léegi dama am problème gis nga gis nga ñàkk yaxiin ci yàlla diw moo ma tuub loo moo ma yoroon bi mu deewee ba léegi dama am problème kon ça veut dire que diw moo ko yoroon yàlla yoru moo tax yàlla seetaan ko c'est parce que dafa jàpp ne diw moo ko yoroon kenn yoru fi kenn yenn saa yi sax nga gis borom kër gu mer naan doom yi di nga xam man ak yow la o di nga xam dafa ne yaa ko yor yoroo ko de te wallahi bu génnee léegi nga gis muy lekk di naan ñaata nit la seen bàyyi dee ñu nekk seen biiru yaay juddooguñ waaye ñooñu am na ñoo xam ne dem nañ ba nekk ay président de la république am na ñoo xam dem nañ ba nekk ay borom xam-xam am ñoo xam ne nekk nañ ay ponkal borom doole amuñu bàyyi bu leen encadré ba yeggal leen foofu mais yàlla foog nit ñi delloo xel seen bopp xam ne ñàkk a topp yàlla di kontaan loo nit ñi li muy waral ci yow rek mooy ñaari feebar nga am moo tax ñaari feebar yooyu dal la moo tax ngay ut kontaan te nit ñi bàyyi yàlla bu njëkk bi mooy da ngaa ragal nit ñi te yàlla waxoon na ne wala taxaafuhum wa xaafuuni in kuntum muminin yàlla waxoon na bu leen ragal kenn na ngeen ma ragal man kenn yàlla waxoon na wa iyaaya fattaquuni man kese gis nga maf'ul bi la jiite yéen ñi jàng arab dañuy wax ne baat yooyu saa yu jiitoo la ca war a tegu yàlla rek moo ko moom moo tax gis nga iyaaka na'budu maf'ul bu jiitu fa'il la yàlla ko moom wa iyaaka nasta'in wa iyaaya fattaquun iyaaya fu mu jiitu baat ba cay tegu yàlla ko moom kenn du ko bokkaale kenn du ko du ko bokkal kenn loolu mooy jàngale arab ragal nit ñi day tax doo def santaane yàlla waaye beneen feebar bi gën a doy waar mooy yaakaar nit ñi nit ñi léegi bu ñu yaakaaree ci yow rek loo wax noonu la ah noppi leen di bu kenn wax de wala bu ngeen di wax xam leen ni ngeen di waxee waaw parce que xam ngeen ne waa ji yooyu mooy lan ana yàlla lan moo tax ñu koy ragal lan moo tax ñu koy yaakaar wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu te bu kenn yaakaar ne yow yaa yor wërsëgu nit ñi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi wa ma min daaba la yàlla wa ma min daabatin fil ard fii ci suuf si lépp luy dukkat daaba mooy lépp luy dukkat am ruu di di dox wala muy raam wala muy naaw wala muy feey yàlla nee na man maa yor sa wërsëg mbokk yi ñaata rabu àll moo nekk ci àdduna bi ndax xam ngeen ko ñaata rabu àll moo nekk ci àdduna bi ah ñaata rab ñoo nekk ci dëkk bi ñaata kenn xamul nu mu toll waaye wala loolu yëpp dañuy dund fan la ñuy liggéeyee bu weer dee kan moo leen di fay salaire gaynde yi ban société la ñuy liggéey pour lekk ñay yi mbaam yi fas yi xar yi xataa weñ yi dinaaw ma ne xataa fel yi xataa yooyi ñu ngi dund te am na ci yoo xam ne sax ndeysaan ñoom ay patron lañ patron ci Sénégal mooy kan mooy patron ci Sénégal kuy lekk lan kuy lekk yàpp su benn waaye ñëwee sa kër trois jours ngay lekk yàpp hi waay waay su waay ndekki sama waay patron la de ñu guddi yàpp lay lekk kon yooyu ay patron lañ gars yi nangu ngeen wala yooyu duñu ay patron yoolu muy lekk ah deret mooy lan mooy yàpp gis nga du lekk sax ñax kon xanaa ñoom ay patron lañ gaynde ay lan lañ xanaa ay patron lañ gaynde day lekk ñax gaynde lu muy lekk du lekk ñax segg yi nag bukki yi nag kon ñoo ñëpp ay patron lañ ndax yàpp la nii lekk gis nga te yàlla ngi leen koy jox kenn ci ñoom sa ravitaillement du manqué yàlla daf la koy jox fu ñuy liggéeyee bay lekk yàpp yow fii tey boo lekkee yàpp da ngaa da ngaa liggéey wala ñu sarax la may la amma lu dul loolu day génne sa poos gaynde yi ñoom duñ génne seen poos te ñu ngi lekk la ilaha illa allah parce que yàlla moo leen di wërsëgal wa ma min dabbatin fil ard kon bu ragal kenn li yàlla bind sa jëne da nga koy jot billahi wallahi da nga koy jot li yàlla ne doo ko am wallahi doo ko am mooy xadis bi ñu doon jàng bi paase kër kër yi indi doole përëx përëx yi taxul nga am yàlla moo yor mooy joxe soo doxee ndànk def ndànk yàlla dina indi mbir mi soo kër këree tër tëri du tere ne di nga ko jot waaye nga jot ko ci jotin bu ñaaw fekk dafa waroon ñëw moo tax yonent bi naan laa laa yasriqu saariq hiina yasriq huwa mu'min sàcc bi waxtu wi muy dem di sàcc gëmatul yàlla lu tax gëmatul yàlla bu gëmoon ne yàlla dina maye wërsëg est-ce que dina sàcc dafay sàcc pour lan pour am kon gëmatul yàlla yàlla nee na heure bi mu solee dàllam rek dem di sàcc gëmatul yàlla iman nekkatul ci moom moo tax gis nga am am du lu ndaw ci jaamu yàlla yi la bokk liggéey ci jaamu yàlla la bokk moo tax pas-pas bii suñ ko defarul ci nit ñi jafe-jafe rek la ñuy am mbokk yi mu ne wa zalika min daafil yaqin gis nga ragal nit ñi yaakaar leen dafa bokk ci ñàkk am kóolute ci yàlla moo tax yenn saa yi nga gis ñaari super di daw di njëkkanti tali bi di njëkkante benn client ba indi accident ba këpp oto yi lu ko waral mooy ñàkk am kóolute ci yàlla man damaa xëy di liggéey li yàlla ne tey versement bii laay am loolu laay am su ma dawee ndànk dinaa ko am bu ma dawee bu baax dinaa ko am kon lu lu fi xew lu fi jot lan laa war a def mooy ma def ndànk nga xam ne li yàlla wax loolu rek mooy am su ma doon kër këri ba bëgg a dayit li yàlla wax tey jii moom mooy am mooy am mooy sonn rek dara du ci sotti kon nan am yaqiin ci yàlla yaqiin moom la nu manqué moo tax mu ne yaakaar nit ñi ak ragal leen mooy dooful yaqiin mooy ñàkk yaqiin ci yàlla tabaraka wa taala mu ne fa ida lam yuqaddiruka fa ida lam yuqaddiru laka ma tazunnu annahum yaf'aluunahu maak fal amru fi zalika ila allahi la lahum ndeysaan fa ida lam yuqaddiru laka yàlla bu la dogalul yàlla bu dogalul ma tazunnu loo foog annahum yaf'aluunahu ñii de danañ ko def danañ ko def maaka ànd ak yow mu ne fal amru fi zalika ila allah la lahu ndeysaan léeg-léeg nga foog waa ji dana ma defal dara wala waa ji dana ma wax dara wala waa ji dana ma def dara ñett yooyu benn amu ci mu ne loolu nga foogoon du ci waa ji delloo ko ci yàlla tabaraka wa taala du ci kenn yàlla la su neexoon yàlla mu def waa ji loolu mu waxoon mu def ko mu def wala li mu waxoon daf la koy defal mu defal la ko wala li mu waxoon ne daf la koy def mu def la kon bul delloo mbir mi ci ci waaj waxal qul lan yusibana illa ma qad kataba lana li yàlla bind ci ñun rek mooy am waxal xasbuna allah wa ni'mal wakil ñun yàllaa nu doy ci yàlla lan wéeru jeex na waaw loolu mooy pas-pas mu ngi am yaqin mooy nga am kóolite ci allahu subhanahu wa taala bul delloo mbir mi ci kenn fa innahu mu ne maa ngi lay yëgal ne li wóor maa shaa allah maa shaa kaana yàlla lu ko soob mu am wa ma lam yasha lam yakun yàlla nguuram gi lu ko neex rek moo ci am lu ko neexul du am waaw maa shaa allah kaana wa ma lam yasha lam yakun yàlla li ko neex mooy am lu ko neexul du am soo amee pas-pas boobu nga noppalu kon dootoo tuumaal kenn doo ne Samba la doo ne Demba la doo ne ñii la doo ne kii laa lekkoon démb ci abam bi feebar kii démb xooloon na ma mais waa ji yéen seetlu ngeen ci moom bëtam yu xonq yi saa yu ma jàkkaarloo ak moom rek ah déedéet du kenn yàlla la yàlla la du kenn waaw du kenn waaw keroog ba may tàggoo waa ji di def examen xam naa ne bëtam yi ma xool moo tax aw ma ñi seen làmmiñ ñi moo tax aw ma ñi seen déedéet du kenn yàlla la li yàlla wax rek mooy am ci sa dund li yàlla tracé rek mooy mooy am su pas-pas boobu wéree ci yow nga noppal nga am iman loolu mooy yaqiin kóolute ci yàlla tabaraka wa taala nga am kóolute wallahi alazim ah allahu akbar fa ida zammamtahum ala ma lam yuqaddir kaana zalika min dofi yaqinik dégg nga wax bi mu ne su fekkente ne da ngay ŋàññi nit ñi ci lu yàlla deful lu yàlla ne du am nga ci xas nit ñi lu tax li amul dafay wane ne yow sa yaqiin moo dëgërul yow sa kóolute ci yàlla moo wóorul wóolu woo yàlla lu tax nangam amul bul ko wax nit ñi demal ci yàlla nga ne ko lu tax nangam amul parce que moom la moom moo ko neex mbir mi amut léeg-léeg nga gis ku sama jabar ji jigéen rek lay jur non waaye léegi ku jigéen kii la wala yow la wala wala yàlla la ñoom ñett kan la buñ génne woon yàlla sax ñu ne ñaar ñi diggante jëkkër ak jabar ku góor ki ñeme taxaw naan kii jigéen rek lay jur léegi moom moom la wala ki ndaw si la wala ku jigéen ki ñeme taxaw nag kii man di man xanaa ay doom yu góor rek laay am awooy moom lii lan la lii mooy ñàkk yaqiin ci yàlla amoo koo lute ci yàlla ndeysaan te yàlla lim def rek noonu la yàlla lu mu def lu mu la defal rek noonu la ndeysaan benn buur dafa wax benn borom xam-xam benn borom xam-xam dafa wax benn buur yàlla lu mu def noonu la mu ne ko ah yàlla lu mu def noonu la mu ne waaw mu ne tëj leen ko ci kaso bi waaw di nga xam ne yàlla waaw bu fekkee ne yàlla def noonu la kon léegi yàlla moo ko def mu ne ko waaw ñu jël borom xam-xam bi ne war a ci kaso bi tëj gis nga buur bi génn ñu jàpp ko war ko rey nekk buur bi nopp bi dafa dagg waaw li taxoon sax mu ne ko li yàlla def noonu la mooy nopp bi moo daggoon mu ne waaw sama nopp dagg lii nag kooku mu ngi toogoon rek mu ne ko lu yàlla def noonu la rek mu ne yàq yow sama nopp dagg man buur bi nga na dajal leen moom ñu tëj waaji mu génn ñu jàpp biñ ko jàppee dañ ko war a yóbbu ci ay xërëm rey ko te xërëm bi nag moom lu mat la bëgg biñ ko indee ba sëggal ko bu ko rey rek ki kiy reyaate gis nopp bi dafa dagg mu ne nit ñi eh yéen yéen ki ngeen indi baaxul gars yi ne ko lu ci nekk mu ne nopp bi dafa ma benn nopp la te yàlla ji ku mat sëkk lañ koy reyal ku dara manqué wul ñu ne bàyyi leen ko ñuuti keneen ñu bàyyi ko mu def ñibi rek mu ñëwee rek mu ne mu ne génne leen ko aaj ñu génne ko mu ne ko xam nga man dañ ma waroon rey mu ne waaw mu ne xam nga lu tax rey ñu ma mu ne waaw mu ne sama nopp bi mu ne waaw léegi nopp bu dagg ak bopp bu dagg bëggoon mbokk yi nopp bu dagg ak bopp bu dagg buñ ko proposé woon kenn ci ñun fii ñu ne ñu dagg sa benn nopp ak ñu dagg sa baat loolu jël mu ne ko gis nga waxoon naa la lu yàlla def noonu la mu ne ko waaw kon yow tëj bi ma la tëj nag mu ne ko bu ma àndoon ak yow man la ñuy jàpp rey ma ndax maay ki mat ki man tamit kaso bee gën xam nga ne ñu rey ma yàlla lu mu def noonu la bul sax werante da nga xëy sa bopp métti moo gën ci yow de ndax xëy na am na leneen lu naroon ñëw lu gën a garaaw bopp mais nag ñun du ñu gis du ñu xam parce que amuñu yenn degré imaan yi amuñu yenn degré yaxiin yi ci yàlla looloo tax bu dara amee lu ndaw rek nga commencé mais booy lan la non ça va pas quoi qu'est-ce qui se passe non ça va pas nga taxawoon bi temps yi quoi taxawoon bi da ngay waaru quoi da ngay maar quoi dëkk bi dafa ñàngo quoi commencé ah langage yoo xam ne doo wax alhamdulillah doo wax alhamdulillah nu yonente bi doon waxee yonente bi bu neexoon day wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su metti woon day wax alhamdulillahi ala kulli xaal soo feebaree buñ la waxee waxal alhamdulillah soo amee waxal alhamdulillah boo ñàkkee waxal alhamdulillah bu seddee waxal alhamdulillah bu tàngee waxal alhamdulillah yëpp yàllaa ko moom parce que yàlla la subar sunu borom subhanahu wa taala kon bul fexe mukk ngay ŋàññi nit ñi ci loo xam ne amoo ko loolu dafa bokk ci min da fi yaqinik fala taxafhum bu leen ragal wala tarjumhum bu leen ŋàññ wala tazummuhum gis nga bu leen xas min jihati nafsika bu mu jóge ci yow mukk mukk mukk mukk waa hawaak ak say bànneex déedéet bul def loolu walakin waaye mbokk yi nekkal ci ñoo xam ne man hamadahu llah ñi yàlla sant wa rasulu ak yonentam fa huwa al mahmud kooku mooy ku ñu gërëm ku yàlla gërëm ku yonent bi gërëm wallahi fa huwa al mahmud kii mooy ki am ngërëm kii mooy ki ja ki am kontaan wa man zammahu llah wa rasulahu képp ku yàlla ku yonentam ŋàññ fa huwa mazmum kii mooy ku ñu ŋàññ loo ci dégg mooy ku am ngërëmal yàlla kii mooy ku texe ku am meru yàlla ku yonentam kii torox na aduna torox na àllaaxira wa lamma qaala baadu bani baadu wafdi bani tamim ay muhammad aatina fa inna hamdi zaynun wa zammi shaynun fa qaala sallallahu alayhi wa sallam zaaka allah zaaka allah ndeysaan benn délégation ñu ngi bokk ci giir ci famille bu ñu naan bani tamim dañoo ñëw ci yonent bi saa salaam ñu ne yonent bi jox ñu de nang ñu jox kenn ci ñoom ne yonent bi jox ñu xam nga man sama ngërëm taar la waaye cey sama xaste ku ma xas rek ngaal ko yonent bi ne ko loolu yàllaa ko moom yàllaay kontaan ci nit nit texe yàllaay mere nit nit al ko loolu du sa melokaan de loolu moomoo ko yàllaa ko moom gis nga ndeke gis nga même am na yenn jëf yi ñuy jëfloo nit ndeke nit moomu ko xoola waa ji lu mu wax fa inna hamdi zeynun wa zammi cheynun sama kon sama ngërëm waaw taar la de man de ku ma gërëm nga sa affaire baax léeg-léeg nga gis ci dëkk bi am na nit ñu ñaaw làmmiñ ñoo xam ne ci xew yi la ñuy dem foo leen seen ñuy ñëw da nga leen di wutal place ñu toog nga wutal leen njar ndox mu sedd ñuy naan wutal leen lu ñu lekk bu ñuy ñibbi nga jël xaalis bari jox leen lu tax ay kii làmmiñam bi ñëpp a leen ragal amoon na ci tukulóor yi ñu ñuy wax almudo ngay almudo ngay ñooñu dañoo jàng waaye dañoo kàccoore jàng nañ diine waaw jàng nañ alxuraan jàng nañ tuuti ci sharia wala ñu dem liggéeyi ñu nekk ay ñaankat mos dañu dem benn dëkk pour won leen na ay saay-saay lañ ñu dem ci dëkk bi di gane sëriñ bi sëriñu dëkk bi ñu ñëw gane ko ñu ñaan ko mu ne leen loolu du sunna duma leen may yéen dem leen ngeen liggéey ay bandi ngeen wax ñu ko dara gars yi daa dem ci jàkka ji toog di ko xaar julli jot ñu ñëw li noddu li xaam sëriñ bi commencé tari di jiite julli gi saar bu mu jàng ñu ne ko subhanallah bismillahi rahmani rahim alhamdulilah ñu ne subhanallah bu kii waxee subhanallah bi keneen na subhanallah keneen subhanallah jàkka jëpp subhanallah sëriñ bi daani selmal daan ne lan laa jum ñu ne ko mayooñu ñu ne loolu rek ñu ne waaw mu ne may leen leen ñu dem ñu may leen ñu doog a génn dëkk bi dem gis nga xam nga loolu moo ne ñooñu ay bandi lañ ñu mel noonu nag nit ñi dañ leen di ragal yenn saa yi pour lan pour mucc ci seen làmmiñ wala yenn saa yi ñu ne la boo leen mayul am na ay ñaan yu ñor bu ñu ko ñaanee liir bi day dee bu ñu ñëwee ci takk boo ñu ne boo leen mayul bu ñu waxee takk bi day yàqu wala sëy yooyu la ñu menacé nit ñi nit ñi ragal leen waaw fekk loolu du benn amul benn njëriñ nit na wakkul ci yàlla am yaqiin ci yàlla am kuulute ci yàlla wallahi wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yàlla moo ko wax te yàlla du waxantu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la lan moo tax dëkk bi tey bëri ay sëriñ tariya bëri ay maaman c'est parce que nit ñi amuñu kóolute ci yàlla barki démb damay xëy di dem tool ma jaar tali bi di dem bi ma génnee jàkka ji li ma njëkk a gis bi ma génnee jàkka ji li ma njëkk a gis mooy ñeenti mbuusu xorom yu ñu teg ci seli bi yoon ñeenti mbuusu xorom yu ñu teg ci sële bi yoon ma demaat 20 mètres ma gisaat yeneen ñeenti mbuus ñu teg ko ci sële bi yoon ay xale wër ko di ko saw ay xale taalibe naan waay yow ñu ay bandi lañ liggéeyaate rek lañ fi nekkee nañ ko toj booy génne seeni awra di saw man leen beneen jala nga nele ñu daw xorom soosu saraxe ko ay nen la saraxe ko ah dañoo bëri groupe lañ ay taalibe lañ groupe lañ xam naa ne c'est secrétaire ca saw ndax ñu ne nañ daw rek ñu tërërëri man leen ma nga ne la jalbale ñu daw xoolal loolu nga jël xorom doo ko saraxe nga jël nen doo ko saraxe nga jël guro doo ko saraxe lu ñuy lekk la lu adagan la saraxe ko mais dañ koy def noonu parce que jinne yi ñoo leen koy sant dama nga teg ko ci sële bi yoon buxaaba yi ñoo leen ko sant te buxaaba yi ñu ngi ko jëlee ci jinne yi waaw loolu moo tax dem ci gisaanekat wala seetkat araam parce que dalay weddiloo yàlla tabaraka wa taala parce que ñoom amuñu yaqiin amuñu kóolute ay jinne la ñuy sukkandiku ak ay caaxaan mbokk yi waxu seex al islaam ibnu taymiya foofu la jeexee mu ne wa dal al xadis ala anna al iman yazid wa yanqus xadis bi ñu jàngoon daf ñuy wane ne ngëm yàlla day yokk ngëm yàlla day wàññeeku anna al iman yazid wa yanqus ngëm day yokk day wàññeeku ngëm nag lan moo koy yokk mooy jëf ju baax lan moo koy wàññi mooy sàggani jëf yi gis nga koo gis moo la gën a bëgg a jàkk moo la gën a bëgg sunna di naafila di woor lëndi di wóor jeudi qiyaamul layl di def lu baax moo la ëpp ngëm moo la ëpp ngëm képp koo gis mu sàggane diini julli nangam nangam nangam ngay gis amul dara ci ngëm yàlla képp koo gis mu gën laa kawe ci ngëm yàlla rek xamal ne def laa ëpp jaamu yàlla bul bul la bul laaj waa ji lan la ma rawee bul laaj bu guddee yow da ngay nelaw moom du nelaw boo amee temps da ngay nekk ci télé bi di seetaan wala nga dem marché di seetaan moom mu ngi jël alxuraanam di jàng wala dem na jàngi ah kooku mu la tolloog moom bu ngeen jàngee histoire Abdullahi ibnu Xuzaafa bi ko romain yi jàppee xisa bu gudd la naa leen tënkal fenn rek biñ ko jàppee tiital ko di ko bëgg a rey te niñ ko doon tiitale mooy dañoo rey benn jullit bu koy gis ñu ne ko yaa ci tegu nan la ñu reyee jullit bi mooy dañoo baxal cin ba mu fees cin yu ngand yi bi ñu baxalee cin bi ba ndox mi tàng jër ñu jël benn jullit dugal ci biñ ci dugalee rek jullit bi daal di siddeeku yàpp yi wàcc yax yi jóg kaw ndax dégg tàngaay ndox mi ñu ne ko yow la ñuy dugal ci beneen cin bi rek mu jooy yéeféer yi na ko voilà yaa ngi nii ragal dee ñu ngi nii rey kii ngay xam nga ne yaa ci tegu ngay jooy léegi looy jooy mu ne jooyu ma ragal dee de ñu ne ko lan ngay jooy mu ne kii def maa jiitu aljanna def maa jiitu aljanna ñu ne ko ah mu ne waa xamoon naa nag dina ma jiitu xamoon naa ko ñu ne ko noo ko xamee mu ne ndax bi ngeen ñu tëjee ci kaso bi su ma jullee ñaar rakk mu julli ñeent su ma jullee ñeent mu julli juróom benn su ma waree benn fan mu woor ñaari fan su ma jàngee benn hisib alxuraan moom mu jàng ñaar xamoon naa ni ma rawee ci yu baax yi noonu la may rawee moo tax tey raw na ma parce que jiitu na ma ajjana moo tax ngëm yàlla dafay yokk li koy yokk nag mooy jëf ci ñun gis nga koor ngëm ñëpp ay yokkul tax parce que nit ñi dañuy yokk jaamu yàlla naafila di jàngi alxuraan affaire yi day fees day dem su koor gi jeexee gars yi bàyyi nañ woor léegi nu muy dem ngëm googu yéegoon day wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba waa ji ndeysaan dootul sax dem jànk bu déggee ñuy nodd même bu yeewoo day sàngu di bërëngu ci kawlal bi du nelaw de gis nga heure yu julli fajar boo yeewoo seetlu leen ko heure yu julli fajar boo yeewoo di bañ a dem jàkk wala ngay bañ a julli ji doo nelawaat de waaye seytaane ni la waaye tëddal bul jóg nga tëdd rek mais doo nelaw yaa ngi dégg jàkk ñu naan allahu akbar sami allahu liman hamidah nga tëdd rek yaa ngi koy dégg de yaa ngi naan waa gaa yaa ngi julli de nga xam naa garaawul quoi bu ma yeewoo rek naa la fekk deux heures quoi mu tool dinaa ko mën a julli léegi nag bu ñu ne asalaamualeykum seetaan dog laa nelaw loo nekk nga nelaw nag waaye julli gi heure julli gi doo ko nelaw moo tax al imam xasanul banna rahima shahidul islam xasanul banna rahimahullah day wax bu ngeen déggee nodd rek jugal dafa bokk fukki ndénkaane yu mu def chaque jour ma wax leen ko fukki ndénkaane yooyu dafa neexoon nit am ko taf ko ci buntu néegam fu muy tëdd mu taf ko ci bopp lalam bu yeewoo rek moom lay njëkk a gis nee na qum ila salaa mahma samita nida saa yoo déggee ñu noddu jógal julli ak loo mën a jàpp loo mën a def bàyyil julli gis nga saa yoo déggee ñu noddu ngay jëf ngay yéex yéexlu julli googu doo ko julli ci waxtu bi parce que seytaane moo lay gàllankoor seytaane ngi sawet kon mbokk jullit yi doomu ndey yi ci hadis bi iman yazid wa yanqus wa an al amal min musamma al iman ndaka jëf yépp mi ngi bokk ci cosaanu ngëm yàlla tabaraka wa taala foofu la ñuy yem insha allah noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amee question insha allah tafaddal wa aleykum salaam